alhamdulillahi alkarim silmiman ala istiqaali bi furudin wa sunan alhamdulillahi alkarim silmiman ala istiqaali bi furudin wa sunan سكرت لأنه قد سخني لوطن بي نفى مع القنين waxaadani ilay bitaani min baadi ma sababi taxayri allahu akbar salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. kon ñi ñi ñuy mbokki jullit yëpp. waaw ah, sëriñ bi ngi nuyu mbokki jullit yëpp. di leen ziare ci bis bu màgg bi. di leen ziare ci bis bu màgg bi. di leen baal àq di leen baal àq. Ah, di balu àq ñëpp tey baal àq ñëpp. te ñaan yàlla mu nangu suñu yi fi jàmm yàlla yëpp. di ñaan borom bi tabaaraka wa taala mu nangul suñu mbooleem jàmm yàlla yi ñu doon taxawee. muy koor gi ak mbooleem julli julli ak naafil muy koor geeg mbooleem na nawaafil yi ñu doon def ci julli yeeg yooyu yëpp rek suñu borom tabaaraka wa taala nangul ñu ko. nangul nangul ñu koy suñu njort. waaw nangul ñu ko ndam boo xam ne nag kawe na suñu njort euh, ni ko baax defee rek ji ji nuyoo boobu ñu jiital. waaw sëriñ bi mi ne kon nag niñ ko baaxoo defee rek ñu jiital. nuyoo bi. waaw sëriñ bi nee na nuyoo bi la ñuy jiital. di jiital ci ak Cheikh Mouhamadou Mountakha. waaye di jiital ci nuyoo bi Cheikh Mouhamadou Mountakha. teg ci si Cheikh Abou Baraka. teg ci Cheikh Abou Al Baraka. mu xam ne mu xam ne mooy mooy njiital euh, barab bi. waaw moom mi nga xam ne mooy njiital barab bi. dina ñaanal daal ñu yàgg fi te te wér. waaw di leen ñaanal ñu yàgg fi lool te wér rek. ba ak ñu ba naa liñ naanal lislaam bi ak yoonu si ci ci ci turu Xaadimu Rasuul waaw ba li ñu naanal naalal bi ak yoonu Sëriñ Tuubaa wi radiyallaahu ko. ci seen sax sago. ci seen sago te ko ñu ñaan ko ñoom. waaw te ñu ànd ko ak ñoom ñun ñëpp rek mboolem taalibe yi. kon nag ni ko baaxee defee rek. waaw sëriñ bi ne kon nag ni ko baaxee defee rek. xam nañ ni weeru koor moom bisu bisu ayit. waaw xam nañ ne bisu ayit moom. ni ñu ko tekkee rek ci wolof moo di dañoo yàlla yàlla dañ cee goreel. waaw sëriñ bi nee ni ñu ko mën a tënk ci wolof daal mooy hmm. yàlla da ciy goreel nit bi. gannaaw bi ko te tegee ci moom mu ko tegee ay nattu ba pare mel ni woor weeru koor. xam ngeen ne wax dëgg yàlla weeru koor hmm. metti na lool waaye. waaw nga xam waaye lépp jaamu yàlla la. waaye lépp jaamu yàlla rek la. jaamu yàlla nga xam ne moo tax ñëw fi. waaw jaamu yàlla gi nga xam ne sëriñ bi nee na moo tax ñu ñëw fi muy wa maa xalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni te jaamu yàlla ko. waaw jaamu yàlla gi itam suñu borom tabaaraka wa ñoo digal ñu sellal ko ndax moo ne. wa maa umiru illa liya'budullaha muxlisina lahu diin. sellal googu nag sax daal moom moom mooy mooy liñ jàngati ci weer koor gi. waaw nee na eh, sellal googu sax mooy li nga xam ne moo ñu tënk ci weeru koor gi. mooy yàlla jàngat bi ñu ci mag bi ci jëlee. mooy boobu waaw nee na jàngat bi mu mën a jële ci biir weeru koor daal mooy mooy sellal googu. mooy nit ki da war a ci ci ay ak ci ay jaam yàlla yëpp waaw nga xam ne. Eh, hmm. doomu aadama bi dafa war a sellal ci mbooleem ay jëfam mbooleem jaamu yàlla yoo xam ne mi koy def rek mu sellal ci ndax sellal boobu rek moo ci am solo ndax moom la ñu borom bi sant. te sell sell googu rek mooy mooy li nga xam ne moo war moo waral jullit yëpp rek. moo sellal bi daal hmm. moom sëriñ bi nee na moo war jullit yëpp rek. kon nag sellal dañ dañoo war taxaw moom fu ñàkk nag. waaw kon hmm. dañ ko war a saxal fu ñu waaw nee na dañ ko war a saxal fu ñu toll bu ci weeru koor yi. ñu hmm. xam ne. Ah, sellal bi moom warta yem ci weeru koor rek. ndax weeru koor dañ ko war a jàppee rek ak tàggatu. waaw ci wàllu sellal. weeru koor mu ne dafa doon weer woo xam ne dañ ko war a euh, jàppe rek ak tàggatu ci wàllu sellal ci lépp rek ci lépp ci fi lépp ndax suñ ko sellaloon nit ki lépp lu mu lu ci def rek ngi yàlla tax def ko waaw ndax doomu aadama bi lépp lu mu def rek yàlla rek moo tax mu def ko moo moo war tax moo war a tax mu def ko moo war a tax def ko ci weeru koor ñi jàngal la ci loolu moo di sellal te weeru koor moom am jàngat mu rëy la ci kon nag lépp lu doomu aadamay def mhm. yàlla rek la ca war a war a gis mhm. waaye waru caa gis leneen nee mhm. loolu nag weeru koor moom am njàngat mu mag a mag la ci kon ci loolu nag moo tax ku a war nam nam nekkoon weer ko rek mu wéyal wéyal waaw sëriñ bi nee loolu moo waral kenn ku nekk daal li nga nekke woon ci weeru koor. Eh, nga fexe ko wéyal noonu mu doon ab jeexital boo xam ne dalay topp. Eh, ba weeru koor dellusiwaat. ndax kenn ku ne xam nga si bopp. waaw kenn ku nekk nee na xam nga sa bopp bu baax a baax. xam nga ndax daa nga sellal daaw sellal. Oh, waaw bu fekkee daa nga sellal xam nga ko boo daawul sellal rek xam nga ko. ah waaw loolu nag lu doy waar la. dañu dañu dañu ñu su nekk. def loolu <laughs> loolu neex. Oh, waaw soo soo soo ko nii war nga. waaw sëriñ bi. nee na ñu weeru koor moom. Hmm. Ah, neex nga laq sa nekk. Hmm. def lu la neex. Hmm. kon xañ na looloo tax euh, euh, yàlla ne wa sawmu lii waaw tey ok ok waaw kullu amal ibnu aadama la ko saw sawmu lii wa ana ajzi bihi waaw nee na lépp loo xam ne hmm. doomu aadama mi ngi koy jëf hmm. nee na jëfam la moo ko moom ba mu des koor koor nag moom man maa ko moom damaa koy fay sama bopp ndax koor sellal googu ci am daanaka amul benn ci xeeti jàmm yàlla yi ku ko am kenn ku nekk ni ko sëriñ bi waxee su la neexal nga dugg sa néeg ah, def lu la neex boo génnee ànd ak nit ñi ne damaa woor. waaw te kenn joxul dara waaw te yàlla yàlla yàlla yàlla yàlla yéen xam. waaw te booba yaa yàlla rek ko xam. kon nag sell googu naan nekk sax noonu. yàlla kon sëriñ bi nee na. sellal googu nañ ko jéem a saxal bu baax a baax a baax. waaw ku ci nekk na foo wéete nga nga na nga féete na nga na nga sellal googu nga wéete ko yow. waaw nee na ci yëpp kenn ku ci nekk. foo nekk daal na nga wéet ak sellal googu te xam ne. yàlla rek nga fa nekkoon. ci jëflante nit ñi waaw di jëflanteeg nit ñi ci sell sellal gu mel noonu. ci sellal ko ngir yàlla. waaw di def sa bopp. comme jàmm ji sa bopp. waaw yëpp ci sellal ji moom mooy mooy loolu mooy sellal mooy loolu rek. waaw nee na daal sellal mooy loolu. loolu def mu def mu yàlla moo tax nga yàlla moo tax nga ko waxee rek moom daal yàlla yàlla mi njëkk a jàkkaarloo ñun. waaw donte yow doo ko gis waaw. yàlla moom toujours bi ngi jàkkaarloo ñun. Hmm. maa ngi leen koy wax léegi. Hmm. maa min euh, hmm. min min najwa salaasatin illaa huwa raabi'uhum wala xamsatin illaa huwa saadisuhum waaw nee na fu nit wéet rek na xam ne moom. am na ku ko fa wét li muy borom bi tabaaraka wa taala kon nag ku se noonu mbir mi rek te mbir mi na ku jàpp noonu mbir mi daal. Hmm. waaw yaakaar naa ne a baax. te su boobaa ji jàmm jàmm rek jàpp jàmm rek xew ci ci xeet yëpp. bu boobaa xeet bi yëpp jàmm rek a ciy xew. ndax sellal boobu sax dafa am woon. waaw nee na sellal boobu sax dafa am nu ko sëriñ bu mag bi tënki woon. sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu ci sama déggin. waaw ci ndax sëriñ bi dane. waaw mu ne sëriñ bi dane. kenn defu kenn dara kenn deful kenn dara. kenn defalul kenn dara. waaye kenn defalul kenn dara. ci gàttal moo di rek. waaw ci ci tënk rek moo di. waaw ci tënk daal sëñ bi. da da da teg ne. waaw mu teg ca ne. lu lu waay def boppam. waaw lu waay def boppam. loolu ci ne dëgg la ay war leer la. na sëriñ bi daal. Hmm. da daan wax ne. Hmm. kenn deful kenn dara. Hmm. waaye kenn defalul kenn dara. waaye lu waay def boppam. waaw loolu yaakaar naa nit ki moom. lu muy def rek na xam ne. Hmm. boppam la koy defar. lu mu def ci lu baax. waaw lu mu lu baax. dana xam yàlla dana ko fay. waaw dana xam ne yëg ne yàlla dana ko fay. waaw ci moom lay jàll yàlla kay yàlla yàlla ko fay ëllëg. waaw loolu sax dana tam waaw sax dana ta bala tam ko na ko safara bi tamit yàlla yàlla musal. nee na lépp lu ngeen def. Hmm. ci lu baax. Hmm. nee na da ko fekk fa sunu borom tabaaraka wa taala mu di leen baxaar. kazaalika safaan ba itam. yàlla na musal ci safaan bi. yàlla musal. te ñun war war yàlla war a war sa euh, moom moo tax ñu ñu war di loolu tegtaloo ci wa waa ki kii mag ñi. waaw ci waxi mag ñi. nee na. Hmm. Euh, loolu hmm. di tegtaloo ci waxu mag ñi bu baax a baax a baax. ak yi seen ak seen jëf. ak seen i jëf itam. ndax mag ñi yàlla yàlla da leen dimbali woon. waaw nee na dañoo war di roy ci ñoom ndax ñoom daal yàlla da leen a woon. ñu ñu dégg diine lool sax. waaw ñu déggoon diine lool wax dëgg yàlla. sellal googu ñoom sellal googu sax ñun dañ ko dañ ko daal euh, jotale bu tookal sellal googu. waaw nee na euh, sellal googu ñoom dañ ko daan jottali bu baax a baax a baax. ko suñu mag yi rawatina Cheikh al Khadim radiyallahu anhu. waaw fu fu fekkee ne ñoo dellu ci am njàngam rek. Hmm. lépp loo xam ne. Hmm. ñoo moonu war rek dañu koy daal di xam xam fan lañ ca war a teg suñu tànk. bokk na ci firnde yi. waaw bokk ci firnde yooyu. ci sell gi ñoom sell gi nee na sell gu ñoom. waaw sellal bi ñu daan sellal weeru koor. ñoom yàlla dañu daan dañu tere ku ci jël lu soxna su ndaw. waaw nee na ñoom sax dañ daan tere ku ci su ndaw ci biir weeru koor. boo soxna su mag sa moom boo wàññi su mag sa moom nee na wàññiwul dara dañ doon tere ku ci jël soxna su ndaw ci biir weeru koor. te loolu lislaam terewu ko. loolu lislaam terewu ko xañ na. seen ak sellal rek moo ca àggan ko. seen seen dëgg lislaam seen loolu seen sellal rek. loolu nag gannaaw bi gars dafay am njàngat ci ataat gaa yi dafa dafa taxaw seetlu. waaw nee na loolu bi ci gaa yi defee ak taxaw seetlu. xam nañ ni daal ñoom ñoo ñoo nekk ci yoon wa ñoom ñoo waaw ñoom xam nañ ne ñoo nekk yoon wa ñoo ñoom mag ñooñu. waaw loolu loolu benn la ci li lim nañ ne roy mag ñi. waaw loolu nee na benn la. Hmm. Euh, ci li nga xam ne. Hmm. Euh, moo tax mu ne leen nañ roy mag ñi. ñaareel ñaareel ñaareel bi. waaw nee na ñaareel ba mooy. mag ñi danañ gis ñu war a jot li nga def nii. waaw ñoom dañ ko dañ ko waaw nee na mag ñi. Mm-hmm. lu mel ni lii may def muy jot li ji. Mm-hmm. Ah, dañu koo taamu woon bu baax a baax a baax. rawatina suñu kilifa yi. waaw suñu kilifa yi mu ne. ñu ci ëpp ñoom. ñu ëpp ci ñoom. wax. suñu daan wax. dañu ko doon jot li. waaw leen ko daan jot te loolu mbi mbi mbi seetlu naa ne daal am na am na ci nekk am na secret ci nekk. waaw nee na loolu itam muy jot li googu nga xam ne. Mm-hmm. suñu kilifa yu baax yi ñu jiitu woon. ca mag ña nee na dañ leen dañ daan jot li bu ñuy wax. Mm-hmm. ñoom seetlu woon nañ ne daal jottali googu. Mm-hmm. am na secret bu nekkoon ci biir. waaw man daal seetlu gis naa ko xaw ma nag ñu bari gis na ko wala loolu daal sëriñ bi nee na na ci ab seetlu xaw ma nag ñu bari. gis nañ ko wala déet. waaw loolu mm-hmm. loolu ñaar ñaareel la ci li ma seetlu ci mag ñi daan ko def. waaw nee na loolu. mooy ñaareel la. ci li ma seetlu ci mag ñi daan ko def. ñu jottali lu googu. waaw te ndax te teewul ñoom daal dañu mën a wax. li li li ñu bëgg a wax lépp. nee na euh, teewul sax ñoom. Hmm. daanañ mën a wax lépp luñ bëgg a wax rek mën nañ koo wax. Ah, amoon na teewul daanañ hmm. woo nit mu taxaw leen di ci seen wet leen jot leen li ñuy li ñu bëgg a wax. waaw te di waa su su loolu nag lu mu jublu ñaar ñaar ñaari kii yooyu lu mu jublu nag ñaari yëpp ci la sànq yële. waaw nee ñaar yooyu ñaari mbir yooyu yëpp nag. Hmm. ci lislaam rek lañ ko jële woon ndax ñoom seen lépp lislaam la woon. ndax bu ñu seetloo. Mhm. ci li ñu jàng ci téere yi. waaw nee bu ñu seetloo li ñu jàng ci téere yi. mooy jàngkat yu bari ñoom ñu yu bari. waaw jàngkat yu bari nee na. ñoom nee nañ daal. waaw wax da war a jàkkaarloo ñu wax ak ñoom ñu dëgg. voilà nee na. Mhm. Euh, jàngkat yu baree bare. Mhm. dañoo wax ne képp kuy wax daal. da ngaa war a jàkkaarloo ñi. wax ñu dégg la. ndax daal ah, ñun daal jàpp nañu loolu boobu daal mooy mooy bi nga xam ne mooy mooy mooy gën a leer ci nit ñi ñu dégg ko. Ah, nee na borom xam-xam yëpp. dañu hmm. jàpp ne loolu daal mooy li nga xam ne. Hmm. moo gën a leer mooy gën a leer ci nit ñi dégg ko. loolu loolu loolu dëgg la dëgg la nag. waaw ndax loolu dégg la ndax lépp loo xam ne. Hmm. kilifa gi da koo taxaw. ci kanam mbooloo di ko wax. dafa bëgg ñëpp jariñ ja ba tax na itam nu mu ko mën a gën a jottale jottale nit ña rek mm-hmm. ak kenn ku nekk mën caa am aw déggin jariñoo ko mm-hmm. loolu moo taxoon ñu taamu mm-hmm. ñoom bu ñuy wax ñu leen di jottale waaw loolu ñaari ñaari ñaari eh, misaal yi mu joxe yëpp nee na ñaari misaal yooyu mu ci joxe yëpp ci lislaam ko lislaam ko jële loolu lépp ci lislaam lañ ko jëlee. bu ci nekk lislaam noonu la ko diglee. ci dëgg waaw nee na lu ci nekk. Hmm. noonu la ko lislaam diglee woon. waaye suñu mag ñi nag ñoom seen dégg seen dégg lislaam gu rafet. waaw suñu mag ña nag nee na ñoom seen déggug lislaam gu rafet daal. moo tax ñu daan def noonu. moo tax ñu doon def noonu. moo tax ñu ñu daan du dugal daal xëy na xëy na aada la ci ci ci day ci ci ñun xëy na. nee na loolu nag xañ na moo tax mu nekk aada ci ñun. waaye waaye nag aada aada ju rafet la man sama gisin. aada ju rafet la mu ne wax dëgg yàlla. sama gis man sama gis-gis. waaw dëgg yàlla lu rafet la. waaw lu gannaaw lu gannaaw loolu nag ñun ñun ñu ngi sant yàlla bu baax ñun. waaw nee na daal loolu ginnaaw bi moom nee na ñu ngi sant yàlla bu baax a baax a baax. ndax mag ñu ngi fi. waaw ndax mag ñi ba léegi nag ñu ngi fi jógewuñu fi. seen i wax yi ba des des na fi. waaw seen i wax des na fi. ak seen i jëf. seen i jëf itam des na fi. am na fi ñoo fi nekk ba léegi. waaw lépp a ngi fi rek seen wax yañ lañ daan wax a ngi fi. Mm-hmm. ah daan jëf a ngi fi. Mm-hmm. Eh, ku ko dégguti ñu ngi la koy nettali nga di ko dégg. am na ba tey ñu ñu fi nekkal ba léegi ñoom. waaw nee na ba léegi nii ñoo fi nekk. wax dëgg na am na ñoo fi ñoo nekkal. am na ci ba léegi nag ñoo xam ne mi ngi feek ñoom. ku mel ne sëñ sëñ sëñ baam sëñ Muntaxa. waaw ku mel ni euh, sunu sang bu baax bi di Seex Muhammadul Muntaxa. waaye jëmm jëmm ak ak ak waxam yëpp ay lu ñu war a lu ñu war la. waaw maanaam ne na ku mel ni sunu sang bu baax bii di Sëñ Muntaxa hmm. nga xam ne jëfam ak waxam lépp rek hmm. ah, dañ cee war a di roy bu baax a baax a baax waaw ci boo ci xam xam nañu xew-xew yi xewoon ci yàggul xam nañ ko kenn ku nekk xew-xew yi fi jaar yépp hmm. ba mu fi nekkeek léegi xam nañ waaw ku nekk xam nga xew-xew yi nga xam ne moo fi jaar taxawaay ba nga xam ne moom la ci am waaw bi ci mujj rek fan fan yi ah, bi ci mujj fan yi muy ci muy taxawaay bu rafet ñu war a muy taxawaay bu rafet rafet boo xam ne euh, dañ koo war a roy ci moom ci weer koor gi waaw ci biir weeru koor gi xam ne ni ni ni ni ni tokkal weer googu yëpp da ko ànd ak taalibe yi wax dëgg yàlla hmm. weeru koor gis nañ ni mu ko doon doxale hmm. ànd ak taalibe di ko dundal dund gu am solo fee ca kër Serigne Touba hmm. nga xam ne loolu misaal la moo xam ne war nañ koo mën a jël bu baax a baax a baax ci moom Cheikh Mouhamadoul Mountakha Hmm. muy muy ci kilifa yi jiite nit ñi hmm. ak mboolem taalibe yi nga xam ne ñu ngi topp hmm. ci ginnaaw kilifa yi yaakaar naa ne lu mel noonu maa ngi leen ko doon junj léegi muy wàcce sa bopp ndax képp koo xam ne da ngaa bëgg a jariñ doomu aadama yi rek am na loo yor te njariñal doomu aadama yi lim ñu war koo mën a jël ci yow il faut nga wàcce sa bopp ànd ak ñoom ba ñu mën laa ñeme ñëw ànd ak yow jariñoo mhm. jariñ lool taaka ndax seen loolu la bi bëgg a juñ taaka ndax seen la ñuy jataay ba lépp xew la waaw seetlu nañ ne jataay ba moom euh, lépp xew la xewal la képp ku fa doon demut it yaa ko doon waaw toog sëñ bi rek toog sëñ bi rek doy na sëkk toog sëñ bi rek xewal sëñ Muntaxa rek wax dëgg yàlla doy na sëkk boo ko déglu xasida boole koog di déglu xasida wala ngay si ngay yor sa kurus di di di di tudd yàlla. waaw wala nga yor sa kurus di tudd yàlla. di zikar wa nga julli ci sallallahu alayhi wasallam. waaw wala nga julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam. loolu lépp xam ne jaa ak yam yàlla. waaw loolu lépp jaamu yàlla la. nga xam ne. Hmm. Euh, yërmande yàlla rek ka fay wàcc. ndax hmm. yàlla rek ka fay turu yàlla rek ka fay jib. Hmm. te dañoo wax ne. inda zikri euh, inda zikri laahi tanzilu rahma. naam naam jataay boo xam ne. dañ fay toog. di fa tudd yàlla daal yërmande yàlla rek fay wàcc kon sëriñ bi nee na kon jataay yooyu daal hmm. ay jataay la yoo xam ne hmm. képp ku fa doon teew na nga yëg ne yërmande yàlla rek ngi doon moo doon wàcc ci yow te it xam ne ngi kenn ku nekk xam na ne sëriñ bi moom defu ko ngir ren lu yàlla rek nag ba tax kon ñi ku fa dem rek yàlla yàlla la fa ko yóbbu waaw te képp ku fa dem sëriñ bi nee na la fa yónni moo moo moo yàlla yàlla yàlla moo tax nga dem fa yàlla tax nga dem fa yàlla rek tax nga jóg dem fa nag li bokk bokk ci li li mu fàttali man. waaw sëriñ bi nee na moom nag bokk na ci li muy fàttali. li ma fàttali. waaw liñ ma fàttali. mooy xel koom dama suñu dem xel koom. waaw nee na jataay yooyu daal li mu ko fàttali mooy xel koom. te hmm. xel koom nag gis nañ ñun noonu lañu fa nekkee. waaw ndax xel koom. Hmm. gis na ne daal nañ fa doon nekkee wuute wut ak nekk yi nga xam ne. moom la taalibe yi doon nekk ak Cheikh Mouhamadul Mountakha ci biir kër Serigne Touba bi. waaw boole ci naka naka boole ci xam xamante gi xam ne mooy mooy moo cee xew. ci diggante boole xamante gi nga xam ne. Hmm. moom la ñu doon xamante ci biir. Ah. loolu lépp ndeysaan. ak jokk bokk yi. ak jokk bokk ga ca nekk. waaw tookal la. waaw ndax loolu lépp moom. da hmm. ciy roy waajuram ya rek. Hmm, tookal la da ciy roy waajuram ya. ni ko sëriñ bi waxee. ndax sëriñ Saalix Mbàkke bi nga xamee ne. Eh, sos na tool yooyu nga xam ne. moo tuddoon xel koom. Mm-hmm. ñu fa daan dem nun taalibe yi kenn ku nekk mm-hmm. gisin wii ci siñ bi am gis nga ko ci mm-hmm. xam ne njariñal taalibe rek béy rek moo taxoon mu def ko leneen taxul woon nag waaw teg taalibe yi ci yoon ak wan leen aw yoon sakala waaw te it tax ni ñu xamante ñu xamante wu woon waaw nee na loolu day tax ñi nga xam ne xamante wu ñoon Mhm. waa wa wala ñi nga xam ne sax xañ ne jotoon nañoo xamante mhm. ndax ñoo bokk menn maam mhm. dañ daan daje foofu ndax euh, buñ ko seetloo ñenn ci njabootu Sëriñ Tuubaa bi ñu bëree bëree bëri am na ci ñooñ foofu lañ leen mas a gisee am na ci ñooñ daanañ gëje lool waaye ci jataay bu am solo boobu xam ne sëriñ bi doon na ko amal foofu ci kër sëriñ Touba bi ñoom ñëpp ña ngi fa doon daje di saafonte fooga tooga la rek ko ci bu a baax mu ne am na am na ko mbokkoon daara waaw sëriñ bi nee na lay firnde ja mooy am na koo xam ne moom moom mii ñoo bokkoon daara. waaye fa fa la fa la gisaate. waaw nee na ba ñu bàyyeekoo ca daara ja. Mhm. ba suñ jonni tey foofa rek la ko gisaate ci jataay. tamit sa fa fa fàttewoon naa ne bokkoon nañ daara. waaw nee na demoon naa ba fàtte sax ne kooku bokkoon nañ daara. te waaye ci jataay boobu la ñu dajawaat ginnaaw ba ñu jógee ca daara ja ba. te mbokk mu baax la tonka la. waaw ndeysaan te mbokk mu baax a baax la la wax na. waaw naa waaw naa ko tëjee sax waa kër sëriñ bu la. waaw waa kër sëriñ ci waa kër sëriñ son yi bu la. yàlla dogal na sax diggante bi daañu diggante nag. waaw bu ko defee man yàlla yàlla yàlla dogal na sax daana diggante diggante bi déggante ci jumtuwaay ci ay mbind mbind ci ay mbind ndax gannaaw dañuy yëngatu ci xam-xam voilà waaw da daanañ jokkoo ci yoolu daanañ jokkoo ci wàllu mbind ak yooyu daal waaw waaye boobu taxul mu fàttaliku ni daal bokk nañ daara taxul mu fàttaliku ne bokk nañ daara waaye ndeysaan mel bi mm-hmm. loolu mu wax silatu rahim dafa nekkaat ci biir mm-hmm. muy jokk ak bokk jokk ak bokk gu rëy ci ne mm-hmm. ndax loolu ni ko sëriñ bi seetloo Hmm. ñu bëree bëree bëri hmm. yaakaar naa am nañ ci seetlu boobu ndax mel na ni jataay bee njaboot ak sëriñ Serigne Touba ñu ci doon ñu ci doon dajee foofu hmm, ak ñeneen ak ñeneen sax ci mbokki taalibe yi yaakaar naa daje bu mel noonu xañ na bu fekkee mi ngi doon am itam bëriwut kon lu am solo la ñaan mu wéy ci kanam rek. waaw nee na daal ñun ñoo ngi ñaan loolu moom mu wéy ci kanam rek. sëriñ bi yàgg fi ne di ko jiite. amiin daa xam nañu daaw bokk na ci li daaw na bopp ji. nee na bokk na ci li ko li ko fangoon daaw ba amul. Hmm. mooy mbas mi nekk ci jamono ji. xam ne. Hmm. ñaan ñun ñëpp rek suñu borom daal ko fiy jëlee rek. waaw te xam ne jotaay yooyu tamit day day xamante xam nañu xamante mooy mooy lu nekk. waaw te sëriñ mooy mooy mooy ñàkk ñàkk réeroo. waaw sëriñ bi nee xamante. Hmm. mooy lépp. Hmm. ndax mooy indi ñàkk réeroo. d'accord te yu bëri ci jamono ji ñàkk xamante moo koy waral. te nee na. Hmm. jafe-jafe yu bëree bëree bëri. Hmm. muy am ci jamono ji. ci diggante doomu aadama yi. ñàkk ñàkk xamante rek ku moo koy waral. kon nañu jéem kaddu yi rek ci ñaan. waaw kon sëriñ bi nee na. di di di di met wetu li fi li fi xawoon ci fan yi fii Touba. waaw bu ko defee nee na ñi ngi jeexal kàddu yi rek. Hmm. di ñaan. te metti lu. waaye di metti li nga xam ne itam xewoon na fii ci Touba. di ñaan yàlla mu bañ fa xewati ba faaw ñaan yàlla mu bañ fee xewati ba faaw. ak it li nga xam ne moom mooy dégg Palestine moom it. waaw ak li ñuy dégg Palestine. mooy réew moomee ñu mbokki jullit yooyu nga xam ne. wax hmm. yàlla ñu ngi ci na joo xam ne. Hmm. ay noonu l'islam rek. ñoo leen koy teg. waaw ñu war koo naqarlu ñun ñëpp. sëriñ bi nee loolu itam ñu ngi ñaan suñu borom tabaaraka wa def ci rek saafara. saafara tawakkal la. na daal ñu yëg ne moom sëriñ bi daal moom mooy suñu suñu lépp la la kon kon ñu ñaan yàlla daal fi fekk déwén. waaw kon nee na. ñu ñaan suñu borom tabaaraka wa taala fekk la waat nu ko déwén. ma ma ñu wér wér yaram. yàlla yëpp ma ñu wér yaram. te te ji ji wopp ko fi. waaw wopp mu jëlee ko fi. ci Sénégal ak ci àdduna bépp rek. àdduna bépp rek. ak Sénégal tubaakal la. mu dellu fa jóge woon. tubaakal tubaakal la. yal na la yàlla yàggal ci suñu kanam amiin amiin amiin yàggal la ci suñu kanam lool lool lool lool amiin amiin amiin nga yàgg di nu jiite amiin amiin amiin te ci lislaam ji ko ci yoonu Serigne Touba itam suñu borom defal ñu ci lu koy suñu njot ci ñun ñëpp rek amiin amiin amiin nosal la ci lépp rek amiin ñaan amiin ñaan ko amiin ñaan ko Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam amiin ñaan ñaan sant nañ bu wér sant alhamdulilah tawakkal ñoo ngi lay ñaanal fi toog بسلام تبعا على الذي خزي أنا تبعا على الذي من بمراد اقتدى في سر والجري يكون مقتدى هو الذي هاجر للمدينة بأمر ربي فسان الدينا وسيلتي لمالك الرفيع محمد الخير ولا سفيع والي وسابي النجوم الخاعر النفوس والرجيم هساوين اليوم يا وابو خيرك في دارين لا أحاب وإنني يا بر يا كريم داين وعن سكرك الهريم منذ جسبتني إليك يا معين عناية منك إلي لتعين